hey booy gaf Touba ça va naka def naka njaay mi taay daa mel mu ngi doog de. waaw alhamdulilah Poulo ça va. waaw booy gaf Touba. fan yi ma dégg journal kale yi di lab di lab di lab yow loolu jaaxalul. waaye Poulo loolu kay Sénégal yëpp la jaaxal xale yi lab si géej gi bari na trop. président moom xanaa munul tere kale yi ñu bañ lab si géej bi munul loolu dara moom moom munu ci daal. mais Poulo loolu président mënu si dara parents yi kay ñoo war di surveiller xale yi. à moins ko état bi ay maître nageur tamit teg leen ci plage comme ça ñuy surveiller xale yi. waaw loolu kay war def loolu mooy dëgg gis nga man bu may nekk dëkk bi monsieur nageur laa woon monsieur nageur. dama doon sauvetage xale yi mu jox leen seen waajur ñu bañ lab xanaa kamoo Dakar rek laa ñëw fii jaay boutique waaye fee rek laa def suñu dëkk fee kat mag laa fa mi lungo toon xaa nder géej dama doon fee bés digg géej gi ma napp jën bi ma génne ko ma lakk ko ma def ci soble poulo yow seen dëkk dafa am géej. yow booy Kaf Touba nga ne suñ dëkk amul géej yow sañ nga wax loolu lool nga wax. kan moo la wax loolu yow ma lay laaj nga bëgg ma laaj. te Pulo yow. li ngay wax dara jubu si. waaw continuer continuer explication. xam laa la wax continuer wu mu dara nii ngeen def bu ngeen yeewoo ngeen tee ñit ñi naan fii la nekkoon léegi fii la romb sang fekk réew moo leen rey dangay dee de noppil mais Pulo tay tangana de il fait très chaud à dakar tangana torof ouf tangana wa wa xam lool yo sa café bi def jek tak tak tak wa wa jehna tak ma allah eh eh boy tu ba ne kon tay am nga kalis de am nga kalis torof tay kar gatu gemeñ waxal kar machallah ma sha allah ding bug affaire cak torof jon ñam lam dool udina ir lebal ma fofu 10000 francs pulo soo assuré yow tamit yow yaa ma war a lebal mais du man maa lay lebal. yow lii lañ wax dégg soxat su ma li lebee nga bañ soo mu lebee suukar mi lebal la. hey ñappal fële ñappal fële laa la wax.